et tey ñu ngi fi teew pour euh, incinérer yi nga xam ne waa douane ñoo ko jàppoon ci ci waa ci biir euh, incinération bu daa am aussi médicament yi nga xam ne waa gendarmerie ñoo ko woon donc euh, moom mu nekk ci man donc une occasion pour que man ma remercier ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci waa ci région bi mooy mooy la police waa gendarmerie ak waa eaux et ak waa sapeur parce que ñu ñëpp xam nañ ne tey pour que ñu mën a xeex efficacement li nga xam ne daa nekk ci xeexum ay drogue wala faux médicament il faut que mu am lëkkalante. day ne dafa am ay texte ay texte de loi yoo xam ne mooy nekk si réew yu ñu war a sukkandiku pour doxalin. texte de loi yooyu nekkul pour luy protéger nit ki rek si yaramam ak si alalam si intégrité physique comme on dit mais dafa nekk loo xam ne mën na protéger au-delà nit ki ak alalam environnement bu muy nekk ak la nga xam ne moom lay jëfandikoo si yaramam kon day dellu si rek si nit ki donc texte yooyu bokk na si li nga xam ne mooy lutter contre la contre façon et les stupéfiants